mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ah, di leen kontaanee te di leen ñaanal bu baax baax yàlla defal leen jàmm waaye di ñaan si réew mi bu baax badu Modou Anta yàlla na fi yàlla dooli jàmm si baak Seydina Mouhamed tey nag ñoo ngi fii Géejawaay génte fils de Balla mu am doom bu jigéen jël tur bi ki nga xamante ni mooy sëram ñu koy ñaanal bu baax baax gan bi gane yàlla na màgg yàlla na barkeel waaye yàlla na jëriñ ndeyam ak baayam si baak Seydina Mouhamed alaaji na États-Unis ñëw na mbokk yi amaale na combat bu am solo diggante ak Xaadim Njaay dañ koy nuyu rek bàyyi ko waxtaan moom si diggante ak fils de lan la si wax ñu daal di ñëwaat Alaaji Liiru nuyu naa la ziar na jërëjëf jërëjëf sëriñ Touba jaaraam maam Cheikh Rayma Fall sëriñ maa ngi lay ziar di leen ziar yéen ñëpp ñoom Modou Anta yéen ñëpp maa ngi leen ziar waaw ah tey fii suñ fi teewee sunu wareef lan def li nu war lan def fii de Balla sunu doom la ñoo ko yar juddulu ko kon nag su amee bis kenn waruñu fee jiitu sunu wareef lan def kenn duñu la kenn duñu fekk fii ne kii lu mu fiy wut kenn duñu fekk fii naan kii lan la fiy def ku mu fekk nag ñu fay war a fekk ndax ñun ñoo xew la tey ndax su Fils de la su amee xew ñun ñoo am xew ndax doomu Géejawaay la te drapeau Géejawaay lay yëkkati du dëgg ñun tamit drapeau Géejawaay moo ñu ñor kon nag loolu du question daal su Fils de Balla am xew ana liiru jaan ma nga ca xew ba waaye loolu du question loolu du kan ah li ma la mën a wax ci moom bari na sunu rakk la sunu xarit la déggal nañu déggal nañu xam mu nekk xale bu yaru nekk champion dafa na bàyyi li muy def Lamine bàyyi li nga def bàyyi li nga def faay non non non bàyyi li nga def nag waaw non bàyyi li nga def faay loo may boole bàyyi li nga def fay bul boole booleel na boole na ma boole na boole waaye bàyyi li nga def fay gis nga lu mu la Fils de Balla sunu doom la sunu xarit la xale bu nekk xale bu yaru teg di ko ñaanal daal doomam ji tey ñuy tudd yàlla na dund ban koy ñaanal li ban koy may borom kër di ko muur muy sëy voilà ñaan la dund ban koy muur muy sëy ba pare mu tuddee ko sëram waaw def na lu rafet ndax sëram boobu nee na mooy yaayam mooy léppam vraiment loolu daal ñoo ko ciy ñaanal yàlla na xale bi màgg ban koy muur muy sëy daal ñu fekkee njariñam voilà voilà tur yal mbir bu bees bi ñu la jox bi te yal mbir moom yaakaar naa kenn kese moo ko tuddoon muy Siteu yal mbir bi tur bi fu mu jóg yal mbir yéen xamu li yal loolu du débat loolu du bu géej waaye am na mu ngi nii toog la waaye mi maa mu mag bi yal mbir a feeña awoy ah yalmin a feeña yuso yuso yalmin a feeña ndax soo nee yalmin dafa ëmb lépp yalmin jàmbaar mooy doon yalmin bañkat mooy doon yalmin góor dëgg mooy doon yalmin ku éméréwul mooy bañ yalmin moo moo ku éméréwul mooy doon yalmin waaye soo éméroo doo mën a doon yalmin soo ndoxam si doo mën a doon yalmin ki xam ngeen ko ba yàqu ndoxum sidi ba yàqu te nekk caaro yi waaw dafa ndoxum sidi daa ndoxum sidi ki may kenn nag dimbal leen ma xam ngeen ko paa bu ñàkk fayda ba fa nekk paa bu ñàkk fayda ba bu ñàkk fayda ba nekk caaro yi waaw dama lay wax paa ñàkk fayda ba nekk caaro yi laa wax yal min mooy bañkat yal min mooy jàmbaar yal min mooy ku tooñ man sama bop la xam yalmin bi surtout d'accord nee yalmin la man xam na ne yalmin la waye man sama bop tam yalmin la ndax damaa tukki won ñu ne sama ginnaaw ku nekk da yalmin a feña eh, man gis na ay tarkina nee nañ baat boobu na ko fu mu ko jógee jëloo loo bimpi bimpi nee na fa nga ci ban wax la yalmin a feña lamin yalmin a feeña saytaane nga yalmin a feña damay ta agale guma man gëreum wa amerique gep di nga sànq di gërëm ku ci mel ni moo Ndiaye directeur Série Madeleine sama waa ji kenn du moom xaritu Modou Anta moo Ndiaye moo Modou Anta nag yóbbanti na ma ci yow am na lu ma wax nee na ma dem naa ba ñëw gisu la tegu ba déggu la Modou Anta ngi nii moom ko wax moo Ndiaye te neenaa naa la kooku da kaa jotul waaye soo ko jotoon rek amu problème kooku je connais très man xam naa loolu dina am incha allah rek kooku baax la seen xarit la yéen yéen ñëpp seen xarit la dafa jàpp fan yëpp dafa jàpp da koy comprendre di gërëm ma faal bàyyi faal ba ah at booy bili ah, ah, ah at sama moo Ndiaye non moor Ndiaye Mor Ndiaye doomu ndeyu Afia at Afia at Bas waa canal gépp ah laay Sarr sama rak sama xarit ah laay Sarr sama rak sama xarit borom Tuubaa at ñoo Omar Sarr at papi doomu nday Xaddaafi papi doomu nday Xaddaafi vraiment ak Laay Diouf Laay Diouf sécurité Laay Diouf sécurité fii la nekkoon Sénégal nekk fii waa GIGN léegi ma nga Amérique di def secret moy lay Diouf maa ngi koy ziar baax at bi sam ben way bu ñu wax Tyson at wa Amérique gep wa at ñu waa wa wa wa ak doole ji mu am. ak confiance bi mu andal ci combat bi. nee na moom wul ay Balla Gaye yu and ak yow ak lu mën di doon neena lu ngeen mën di fexé yeen wa Guédiawaye nan la ëmb andi la rek do am ndam ci kaw waxul deug hmm, yo mënoo maa waxul deug nga ma bayli waxul deug c'est pas vrai. Ah. oh man lolou yëngalu ma. day man faalewu ma loolu man faalewu ma loolu yëngu loolu yëngutuma sa yoon nekku ci nga ma jël revanche sa yoon képpel sa affaire saytaan ak rek nga yow yow soo ma soo ma diggante yow fii lay yeemee ndax xam naa commencé nga sa wax yi nga wax ndax da dem ci moom di wax ah non non fan yi ni mi jabaram de xam naa su ma ne man la faral ma dinaa ko gëm jabaru Lamine su ne man la faral ma dinaa ko gëm waaye moom mi c'est que dafay xaw a kii man léeg-léeg ni muy waxee ak waaw damay xaw a kii si la tiit ci ay mbiram waaye na la moytu su la moytoo ma ne ndokk su yàlla loolu laa gën a bëgg sax waaw sëñ Cissé mu sëñ Babacar maa ngi koy ziar bu wér di ko bëggee sëñ euh, sëñ Cissé mu sëñ Babacar waaw maa ngi koy ziar di euh, Abdoulaye Diop xaas moom ngay wax tamit dafa def lu rafet def geste bu nice ndax lii mu tëgg nii tey su ko neexoon bañ koo def waaye dafa jóg pour jàppale xale yi ak tëju lam làmme ñu waa ji nga xam ne ku nekk ku jóg mu xas la ku jóg ku jóg mu yekk la musiba ah ku jóg mu yekk la musiba ku ku jóg mu yekk la musiba loolu du yoon loolu du dëgg du yoon ah mag mu xamadi la ah téye yi lu nekk mu yàq ko mbër maa koy faj nodd gi nodd gi ñoo ngi ñoo ngi nodd ñoo ngi nodd waaw waaye ba nodd ñu dem ñu dem pose ba nu nodd ñu julli li xaam li xaam teg ci li xaam waaw wa